alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. Euh, li nga xam ne moom la ñuy euh, tëjee wax ji mooy décret bi nga xam ne. Euh, président de la république euh, joxe génnee na ko tey jii pour dakkal dëgg cérémonie yi nga xam ne dafay dajale mbooloo yu bëri muy religieuse ak yu dul religieuse yépp nga xam ne dañ koo def ngir maanaam li olof yi wax euh, xeddeeku bala ngaa lakkale kon maanaam fegal sa bopp feebar bi nga xam ne mu ngi euh, wër àddina bi yëpp ba nga xam ne tey dëkk yu bëri julleetuñ àjjuma dëkk yu bëri ñu ngi teet daje yi bu fekkee ne euh, euh, nguurik Sénégal tim dañoo jël décret bu mel noonu ñun tim dañuy wax ne ñu ngi ànd ak ñoom ci li nga xam ne gis nañ ne moom moo war a nekk taxawaayi jullit moom moo war a nekk taxawaayi diine lislaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaleem jàngale alquran jàngale borom xam-xam yépp daf ñuy wan ne loolu war naa mën a wax na ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima bu leen rey seen bopp yàlla euh, daf leen a yërëm sa bopp mooy nga loo xam ne dee mën na cee euh, jugee nga dem sànni ci sa bopp ba tey ci alquran wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen sànni seeni loxo ci xalkare wolof sax dañuy wax dana màtt ak du màtt bul jox sa loxo comme nag feebar la boo xam ne ni dëgg-dëgg dafay wàllaate te wàllante bu gaaw te dafay rayaate bu nguur yi jëlutoon matukaay yooyu sax borom xel yi war nañoo jën matukaay yi rawatina nit ci diine yi nga xam ne ni seen kàddu moom lañ gën a mën a dégg waaye déggal nit ñi ne amul dara lu ci uuteeg doxale ni lislaam Seydina Omar radiallahu anhu dafay dem Sham fekk boobu Seydina Abu Ubaydata moo fa nekk eh, Seydina Omar bi mu ñëwee ba jub si Sham mu dégg ne dafa am mbas moo xam ne moo xew foofu maanaam feebar buy bi nga xam ne nii mooy corona bii nii xew nii Seydina Omar taxawaat ne xaara ma waxtaan ak kilifa yi mu njëkk jël muhaajiriin yi nga xam ne ñooy saabiquuna al na mu jël leen petoog ñoom laaj leen ñi ngi jublu Sham mbasan foofu nu ñu war a def ñu utee ñi ne ah dañoo jug pour jëm ci liggéey yàlla nañ dem continuer ñi ne déet dañoo dem ci loo xam ne dee mën na faa am nañ jëm mu ne baax mu génn oo magi ansaar yi laaj leen nu ñuy def ñoom it ñi am même uutee boobu nga xam ne nii moom la muhaajiri ni amoon mu ne naa oo muhaajiri yi nga xam ne gannaaw fet sa makka lañ ñëw magi quraysh yi laaj leen ñoom it bañ waxee ñu gis ne daal dañoo war a dëkk naa Omar ne nañ dëkk naa Abu Ubayda se ne ko ah firaaran min qadarillaahi yaa Omar ndax da ngay daw dogalab yàlla Seydina Omar ne ko law gayruka qaalaha yàlla leen teewoon nag keneen ku dul yow wax ko parce que buggut a uuteeg Abu Ubayda te mi nga xam ne kenn la ci ashara na mubasharuna bil na te moom mooy aminul umma Seydina Omar déggam diine mun na ko ilaa qadarillah dañuy daw dogal ak yàlla jam ci dogal yàlla mu ne ko boo amoon léegi say gàtt nga leen di saani nga ñëw ci ñaari xur xur wii nga jug si ko gis ne lu sa gàtt yi for nekkul fa pour beneen bi luñ for nekk na fa nga daw bële jëm ci bële dangaa daw dogal yàlla dem tim ci dogal yàlla kon ànd ak boobu yépp seen naa Omar sax amagut amagut nas bu mu jigee ci yontu sallallahu alayhi wasallam bu mën a sukkandik far rek Abdurahman ibnu eh, ibnu Awf ñëw ne ko man dégg naa ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ida sami'tum fi ardin fa antum biha ida samitum bi taauni fi ardin fala tadxuluha fa ida waqaa fi ardin wa antum biha fala taxruju minha abu obayda si ne abu abdurahman ibnu awf ne man sax dégg naa xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu ngeen déggee mbas maanaam feebar épidémie feebar buy wàllaate ci dëkk fekkee dugg bu leen ci dëkk bi bu leen ko dugg fekkee yen ci dëkk bi tamit bu leen génn ndax mën naa am am ngeen ko ba pare bu bu buggee génn dem wàll ji keneen. Mm-hmm. kon kon lii nii euh, gouvernement bi jël dàqowut ak jëfi lislaam ndax lislaam bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngal laa wala dirara ulama al fiq yi usul yi di wax ne darul mafasidi yuqaddamu ala maanaam jañ loraange moom lañ jiital ci xacci njëriñ ma ne diina joo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba wax ne man akala minkum haadihi shajara yaani tawb fala yatiyanna almasajid ku ci lekk laaj rek mu ne bul ñëw ci jumaa ji parce que laaj xeeti laaj dafay lor nit ñi xeeti laaj nag feebar buy lor nit ñi moo ko gën a garaaw loolu mooy nuñ ma a éviter jaxasoo wi pour wàllante bi bañ a am pour nit ñi bañ a xalaku nañ ko éviter kum wér ne sax da ngaa feebar bi wàlla tin yow sa bopp yaa gën a war a éviter jaxasoog nit ñi kon nañ sàmmante raxasu ba set nañ sàmmante liquide yi nga xam ne mën naa dimbale nit ndax boo nuyoo koo xam ne mu ko am te raxasuwoo boo laalee sa bët mbaa nga laal sa bakkan mbaa nga laal sa gémmiñ rek mun na laa dugg kon nañ sàmmanteeg loi yooyu nga xam ne dëgg-dëgg mu ngi dëppoo ak suñ diine loolu ci sàmm suñ diine ji la kon nag bu ñu ci gouvernement awutoon sax ñun wax nañ cee aw suñ bopp kon ñi ngi o mbooleem taalibe yi ñi dëppoo décret boobu nga xam ne gouvernement bi génnee na ko pour musal askan bi ci feebar bi nga xam ne nii mooy lëmbe ci àddina bi yépp waaye nañ delluwaat ci yàlla te xam ne feebar yi dara indiwu ko lu may yi ak tooñ yi ñu dellu ci yàlla tuub dellu ci yàlla bëril sarax bëril ñaan ndax li Abbas waxoon allahumma innahu lam yanzil balaaun illa bi zanb wa lam yukshaf illa bi tawba fa haadi aydina ilayka bi zunubi wa nawasina ilayka bi tawbati loolu la waxoon ñaan yàlla mu taw ñi ngi waxaan loolu tim di ñaan yàlla yal na yàlla soppi jàngoro ji yàlla bu mu dugg ci suñu réew yàlla génnee ko ci réew yi mu dugg ñi mu ci dal yàlla saafara leen ba buñ wàll kenn yàlla setal ko ci aalam islaami waaye yàlla dindi ko ci àddina bii tey nga xam ne jaru kenn di ndokk benn dëkk bu mu jal ndax dëkk bi mu dal nga foog ne dëkk boobu la dal dëkk boobu mooy sa dëkk sa dëkk mooy dëkkam ndax ñu ngi jokkoo waxtu wu nekk jokkoo boo xam ne lu dal kenn daa dal ñëpp ci àddina bi mm-hmm. moo tax ay la fitna la mbas la moo xam ne Mm, euh, noonu la boo xam ne addina yëpp la song waaye nañ dellu ci yàlla tabaraka wa taala nañ tuub dellu ci yàlla nañ bëril julli ci yonent bi sallallahu wa sallam nañ bëril euh, sarax nañ bëril euh, jéggalwante ndax bàkkaar yu bëri yi rek moo indi loolu nañ ci boole loolu boole ci saabu boole ci eh, liquide yi nga xam ne mu ngi fi am yépp boole ci tim muslu bépp foo xam ne nii wàññi nuyoo bi wàññi jaxasoo yi nga xam ne nii du nécessaire pour mu war a am yal yàlla dimbale yal na yàlla xool jëm ci mbooloo bu ci yërmande bu ci ngërmande yàlla saxal ñun ak yéen ci yooni Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ñu ngi jox Cheikh Mouhamadou Chafii mu tëj ci ñaan bu ko defee ñi tasaaroo mun nañoo sax ñàkk a joxe loxo comme loolu lañ doon jàng salaamaaleykum wa rahmatulah